ni dee ngeen jox ñax bu ci kanam présidence ñu jàpp ko toj ko ci biir kaso démb rek Mauritanie junni doomi Mauritanie ñoo dem ci palais ba manifester sit-in pendant une heure que war nañu nangu Sénégal di dellu ci gannaaw Mauritanie est war nañ nangu est-ce que xeex bi suñu ñu toll fii war nañu nangu Macky dellu ci gannaaw kon ñu ngi exiger nañu bay immédiatement et sans condition Guy Marius Sagna docteur Babacar Diop ak bépp euh, manifestant boo xam ne dañ koo arrêté woon keroog yóbbu ko ci biir kaso. ils sont détenus de façon injuste de façon arbitraire nous exigeons leur libération immédiate et sans condition merci. courant bi dañ ko wàññi Macky Sall moo ñu dina wàññi courant bi waaw Makhtar Cissé neewoon c'est une boîte dégérée une boîte solvable kon war ñu nangu quelque mois après son élection mu yokku courant mu yokku courant di gën a appauvrir sénégalais yi kon ñoo lànk